Salut les amis de eSport TV, merci encore Guy de vous aider à abonner, merci encore de faire des likes et de faire vos commentaires. Nous allons parler Guy aujourd'hui de l'équipe nationale du Sénégal, notamment du nouveau prodige arrivé au sein de l'équipe nationale du Sénégal, Moui Pape Gueye. enfin qui a pu rejoindre l'équipe nationale du Sénégal malgré les quelques soucis nga ont à amoon ci euh, papier euh, administratif qui nga Monaco. finalement Moui a rejoindre euh, équipe nationale du Sénégal Nico du le double ballon d'or africain et la José Nubiouf également la légende du football togolais Emmanuel Achi Adebayor Nous venons encore accueillir ci li nga hotel bi Pape qui a donc fait sa première déclaration au sein de la tanière de l'équipe nationale du Sénégal. Nenemoum, il a fait le choix du cœur, il a fait le choix du cœur, il a, il a hâte de jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a jouer avec l'équipe nationale du Sénégal, il a mën mënam ak li nga xam moom la bëgg nee na tamit équipe nationale Sénégal nekk loo xam ne ci la bokk ndax moom sénégalais la papam sénégalais la papam li mu fi ñëw bëri na da koy wax ci Sénégal lu bëri am na joueurs yoo xam xam na leen avant mu ñëw équipe nationale daan na ci waxtaan ak ñoom ku ci mel ni Bamba Dieng bi nga xam ne tamit moom ñoom ñaar ñoo nekkoon foofu noonu ca Marseille Pape Gueye jamono ji Sénégal du choix par défaut c'est pas un choix par défaut nee na mi ngi ñëw ci équipe bo xamné mom dafa bëggoon na ñëw xolam lo top ak tamit bëgg-bëggam ak aussi le fait que mom dafa sentir ne Sénégalais la ngir rejoindre équipe bi nga xamné mo équipe nationale du Sénégal équipe bu mag équipe boo xam ne nay joueurs yu mag équipe boo xam ne tamit ci moom ci gis-gisam am entraîneur boo xam ne tamit entraîneur bu baax la Aliou c'est ça, de passage ñu koy féliciter malgré les critiques et tout actuellement bokk na ci nominé parmi les 25 meilleurs sélectionneurs du monde Aliou Cissé ñu koy féliciter mais quand même le choix de Pape Gueye pour moi c'est un choix également assez judicieux maintenant la réalité du terrain peut être autre mais am nañ yaakaar ci moom am nañ jot gu rafet ci Pape Gueye ne bu ñëwee équipe nationale Sénégal dina wane boppam tey nag lay def premier galop d'entraînement ak équipe bi nga xam ne ñi waroon ñëw moo ñoom Sadio actuellement nag ñooñu la plupart rejoindre nañ. ci équipe boo xam ne on attend de Aliou Cissé mu indi ossature bu bees notamment que ne équipe bi nga xam ne moom lañu dajeel muy Togo seen joueurs yu bëri dañoo forfait mais aussi peut-être dina nekk occasion du joueur yu ci mel ne Pape Abou Cissé ñu mën a jouer étant donné que Abdou Diallo dafa am Covid mais Pape Gueye aussi dinañ ko xaar ci match boo xam ne moom temps de jeu moom moom tamit bu fekkee ne temps yi joué ak Marseille profilam Aliou Cissé xëy na dina ko mën a tester du moment que mon milieu gauche le te à Lamine Sané waxoon na ko yeneen ancien international ancien international l'apport de Pabri au sein de l'équipe nationale du Sénégal en tout cas il a fait son premier discours li c'est que je suis venu au Sénégal pour faire mes preuves pour euh, aller en puissance permettre au Sénégal de gagner la Coupe d'Afrique et éventuellement se qualifier pour la Coupe du Monde double gis yi mooy dafa am at dugg ci terrain bi a un peu de tax il y a ko peu de temps, il y a jouer ci li nga xam peu équipe nationale du Sénégal Pape Gueye en tout cas il qui a été accueilli comme chez lui, hein, à bras ouverts par le président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor ak Alu Cissé et aussi El Hadj Diouf et aussi ki nga xam Emmanuel Echi Adebayor nga xam ne nag euh, ganale bokk ñi nga ramené l'équipe nationale du Sénégal ndax Sénégal Togo lay dans ci jongante éliminatoire Coupe du Monde Togo yi nga xam ne ñoom it ñoom dañuy Sénégal qualifié déjà fexe ba ñoom am am qualifié ci li nga phase euh, éliminatoire yi coupe d'Afrique yooyu ñoom fi mu ne nekk ci phase de redressement jéem am benn équipe boo xam ne ñoom la ñuy jéem a créé Sénégal opportunité la tamit ci jogante bi mu wane ci boppam Pape Gueye comme je l'ai dit c'est un joueur yéen ñëpp xam ngeen ko li mu mën a apporter équipe nationale par rapport ak taayam par rapport ak jeu li ñu ñaan rek mooy mu gën a am temps de jeu au niveau de Marseille mais aussi yaakaar bi ñu am ci moom ci équipe nationale ñu am ko Sénégal tamit mun ko utiliser à bon escient ba tamit li nga xam ne moom mooy profilam mun ko adapter par rapport à nos besoins par rapport également à ce que le Sénégal attend d'un joueur comme tel le Sénégal n'a un na binationaux am na ñoo xam ñi joué club am na joué un club de toute façon c'est qui est sûr mooy ku am nga nationale je pense que c'est de bonne guerre maintenant on attend que Ali par rapport à ces deux matchs ait a jox chance de jouer un jeu ñu nous jouer li nga xamné mo jëm ci walum préparatif ou préparation CAN 2021 bi nga xam am ci Cameroun waye tamit mëna xam yeen joueur la mëna a compter ngir mëna am li nga xamné mom moy phase éliminatoire coupe du monde nga xam aussi Sénégal ñu kan la fay tirage ce sera euh, bientôt et on espère que Sénégal tamit dina day équipe boo xam quoi qu'il puisse en advenir dina mëna a permettre Sénégal de ma troisième fois à la coupe du monde bien entendu ce qui est sûr moi que Pape Gueye est un produit sénégalais c'est un joueur qui l'a dit qui est fier de venir au Sénégal qui est fier de porter le maillot national, qui est fier de représenter son pays, le pays de son père, le pays où son père est né. Il est capable de nous apporter plus au niveau du milieu de terrain, Donc, vous les like, hein, comme d'habitude, vous les abonner, les avis, également les commenter, parce que ça, moi, nous, on a développé chaîne, il y a d'autres surprises à l'année avec des interviews, entre autres. Mais tout dépend, bien entendu, du projet et de la continuité. On compte sur vous, vous pouvez compter sur nous également. Merci encore.